ñetti barab yooyu buñ gëndoo ba boobaa jàpp nañ ne liggéey bi dana gën a tege ci yoon ba lu ci génnaat ci ay xalaat naka noona noonu lañ tënkee woon ne njabootu mbaabu gépp muy kër Cheikh Adama kër Cheikh Mabaabu kër Cheikh Malick lu jëm ci tàngal mi lañ leen joxoon muy café ak ataaya ñoom itam ña nga koy waajal yokk ko tëral nañ seeni i waañ yoo xam ne fa la ñuy jële seen i xéewal du ko dugal ci biir pénc mi ak ci biir kër gi naka noonu daayira sëñ Moussa Nawel bi ne ci penc mi moom lañ jagleeloon sëriñ Basiiru Jaw jéete ko ñooy toppatoo meew mi ñoom it noonu lañ ko toppatoo ba di ko joxe daayira bi ñu tuddee soppee sëriñ Basiiru Mouhamed Diop jiite ko ak ñi ko àndal ñoom lañ dénkoon ñu war di joxe ndox mi ñi naan ci penc mi fee soxna yooyu nekk itam soxna maam Isa ma soxna ak Mbacké fa lay nekk fa la soxna Baye Fall yi di nekk danañ leen booleeg ñoo xam ne soxna maam Issa dana tàngal café dugal fa danañ booleeg ñu leen yóbbul ñam ak ñu leen yóbbulum ndox lii lañ tënkoon keroog ñu ne woon bu ñëwee tey dañ koy waxaat ñëpp dégg ko jëwriñ ju ci amaat xalaat mu yëkkatiwaat ko nu ndax dañuy diisoo rek nu mu gën a yaatoo gën naa rafete gën naa mate rek lan bëgg li nga xam ne rek moom la ñuy jiital ci wax ji sëriñ bi yoon yi nga xam ne toog na noog moom ci mbir mi di ci tënk te maag sëñ Yuusu Jóob mii ak sëriñ Moussa yi la doon woo ak sëñ Mountakha Guèye mii dina taxawuloo liggéey bi ci biir bi jóge ci moom moom li doon wax mooy def loowu ci kenn dara daa bëgg rekk li muy njëkk santaane te di ko sàkku mooy teewlu gi teewlu gi ak dal gi ak tatan gi ci xol yi ba mën jariño lim yene talibé moy ñu mën déglu sikrullah bi ñakay tudd tudd ko mu jëm ko te ñepp ji fi nek ñepp lu way gëna a dolli sa yar gën ko dolli sa pastéef gën ko dolli sa dal ba nga mën ba nga mën dégg sëriñ bi mu ne dal gog ak tewlu gog mom lay bëgg ku koy dimbalé nga dimbalé ko lolu jiitu lolu ci loolu dafa nu ko wax jataay bu nekk moo tax tey jii loolu mooy li amoon solo ci li ma waroon wax li ma njëkk a wax lépp dama ko doon jiital waaye jot li kàddu sëriñ bi mooy li ma yitteeloon ji wax ko nu déggandoo ko buñ ko déggee ba noppi fu waaye jëm ku ko mën a jottali koo bokkalum liggéey na nga ko jottali jëwriñ yi dam doon naa sekku sàkku seen mbooloo yi bëgg a liggéey si bala ñoo liggéey si ñu dajalewaat ñëpp tënkalaat leen kàddu yi sëñ bii ku gis mbokkum taalib bi mu war a liggéey siit nga wax ko ne ko lii la sëñ bi waxoon bu ñëwee ba ci biir liggéey bi nuy fàttalente loolu fas yéene dox ci loolu xam naa ne nag fu àdduna daje moom mucc ci yëngu du fa yomb mucc ci coow du fa yomb waaye buñ koy bàyyi xel te di ko di ko dénkante di ko soññante bu lépp matutit lu ci bari mën naa dal sëriñ bi daal nee na li ko ci yitteel mooy dal gi ak teewlu gi ba mën a jariñoo lim bëgg nu jariñoo ko ci lim nuy sàkkul mu mel ne ak taali bi moom niñ koy waxee yitte la pasteef la yéeg-yéeg la te lii kon day liggéey boo xam ne lépp ci sëriñ bi la dellu kon yitte ak yéeg-yéeg rek mooy li ci am solo kon nanu ko bàyyi xel bu baax nan ko jot lente nan ko soññente pénc mi ba fi junni nit nekkoon buñ xalaatee ne bu fi yi néew nekkoon kenn du dégg baat kon bu fi ay junniy nit nekkee te bàyyi xel noonu it coow mën naa bañ a bari bu kenn ku ne delloosee sa xel ci ne ba doon am néew tëdd fi doo wax doo yëngu te loolu la ñu digal suñu digal suñuy kilifa sëriñ bi sant ne nan ko def nan ko jéem a def suñ kem kàttan loolu rek laa doon bëggoon a soññee tey nan ko waajal liggéey bi képp ku ci am xalaat mën na koo yëkkati. lépp lu luñ ci war a dolliwaat danañ ko ci dolliwaat kon loolu lañ doon ubbee di ko tàmbalee noo sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. ñu bëgg nag presse bi fii ñëw bépp nañ xam ne dafa am aw yoon wu ñuy jaar du fu la neex rek laaje waay du loolu taxut a yëf yee jóg kon nañ soxe ba tënku ci ku ñëw fii. dem ca fa ñuy laaje kaddu nga jóg fa sa mikoro micro lañuy la wax nga man ko jotli waye bu rombu ben waaye ci mbedd mi rek mom xamul lu xew nga laaj ko mu wax bané xaw xaaw itam bi mi ngi ñaan mbolem ku fi ñëw te presse na nga bayyi xel lolu lolu moy ndigal li jere ngeen jëf Allah la ya gaba

jërëjëf jërëjëf mur jëpp lu baax seen fam sëñ Modou Benda sama borom yàggal ko wéral ko ba li bëggal sëñ Tuubaa lépp mu def ko ni ko soobee ak wetu maam Cheikh Fall gépp sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu ci turu sëñ maam Cheikh Fall mii moom sëñ Assane muy sëñ maam Cheikh Sikurullah ni nga ko waxee déggee nañ ko ni sëñ bi itam soññ na ci maanaam ñu bokk tuyal bi yëpp mi nga xam ne moo jiite am sikar lay yëpp di suñu kilifa day leeral sëñ bi ne ko noonu mu ko waxee naan nu ko waxee woon waxee ko mm. ko wax itam yemul cox ji dina defee ko noonu waxoon naa nag ca ba may wax la ne koo xamante ne Cheikh Ibra Fall mu sëñ Tuubaa woo di ko liggéey doogu ku ne yaa war a yëg na fay demee ndax Cheikh Ibra Fall am ku fay jëm leerlul ba xam meloon ba mu mel ni nga def faa ñëw loolu waxoon nañ ko ñëpp dégg ko Cheikh Ibra Fall mu suñu taat liggéey loolu nag lu mu ko mën a wax ak nu mën a mel den saxe la suñ bëgg am naka jekk loolu lañ doon loolu la def kon nag sëñ bi ñu xamal ko ne mboolem ñu fi teew di kuréel ñëpp kenn ku ci ne xamee ne sëñ mooy sant lu Cheikh Ibra Fall léegi ku ci nekk sa biir xol bi ba nga ko déggee nga tàmbalee sant gi ci noonu ko mënee ak noo jàpp ne boo ko defee rek loola jag yaa ngi ca loola nii nga ko waxee noonu mooy dal bi sëñ bi bëgg ak bëgg ñëpp teewloo ko kii tudd yàlla moom ko teewlu def su ci loolu lépp amutoon tey bëgg sëñ la ñu wër ñun ñun xàmmewul penko nga ne sawoo nga naan lii bëgg loolu lañ ma sa xam ci wax dafa tolloog ne nag bu sëñ bi waxee ba wax lu mel noonu na wax leen suñ dikkee mel nii moom buñ génnee kenn warut a wax la ngay wax na nga koy wax fi la ko sëñ bi wax loo rek mu li nga wax la mooy wax leen li ñu la wax mooy ni sëñ bëgg dañ ko def incha